salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi nuyu naa ñëpp seen mbokk la professeur Abbas maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal sunu bopp eh, tey nag liñ indi woon mooy ananas eh, dafa mel ni waxaguñ ci bopp ba léegi. ñu ne woon nag nañ ci jéem a dikk rek wax njëriñ yiñ ci xam ananas ndax am na njëriñ ci wàllu wér-gu-yaram am déet euh, xam naa balaa ñu balaa ma sori ci waxtaan wi ma fàttali mbokk yi may déglu garab gi nga xam ne mooy garab gi ma liggéey te liggéeyee ko rek wàllu gàncax gàncax gu sell bu noppi nag tuddee ko la roquette garab gi li ko yëkkati mooy faj wàllu néew kàttan ci wàllu sëy góor ñi nga xam ne ñi ngi dund lu mel noonu wala daf leen dab ñoo ci yem ku ci mën a doon de garab gi traitement la ci incha allah rabbi mën na ko faj waaye it baax na ci seere ak ballonnement ak yaram wuy metti ak ñi nga xam ne dañoo yëg coono seen yaram kon nag yooyu yëpp garab gi ñu tudde la roquette da ko traité xam naa numéro bi mooy 77 786 65 19 ñi dëkkee Dakar ñoom mën nañ maa woo ci numéro boobu 77 786 65 19 foofu waay ne rek mën na woote sax incha allah eh, garab gi am na Touba. Touba sëñ Moustapha Diop moom fa nekkal ñu soxla garab gi moom lañuy woo ci 76 383 87 34 am na fii ci mbuur Mbour imam Mamadou Lamine Diène moo ñu moo fa ne ñu dëkk Mbour ak li wër mbuur yépp te soxla ci garab gii di la roquette mën nañ ko woo ci 77 636

ñu nekk Thiès ak li wër Thiès te soxla ci nañ woo sëñ Pathé Gueye numéro bi mooy 70 564 66 51 ñu dëkkee Kaarang waa Kaarang mun nañoo woo Kaarang jàpp Gàmbi rek bàyyi Idrissa Ndiaye ci 77 611. cinquante cinq quatre vingt kon nag numéro yi ku ci woote di nga am ci garab gi nga xam ne mooy la roquette waa Ziguinchor Casamance rek nañ wax rek waa Casamance ak waa Kaffrine ñoom du yàgg incha allah ñoom tamit garab gi dina fa ñëw xëy na ci semaine bii ñuy dugg bu soobee yàlla kon nag kon nag loolu mooy li aju ci sunu garab gi di la roquette te li ko gën a yëkkati mooy faj wàllu néew kàttan ci sëy ñu jàll nag ci waxtaan wi mooy waxtaanee ananas fruit bi ñu tuddee ananas meññeent wi ñuy tuddee ananas ananas mi ngi cosaanoo ci réew mi ñuy woowee Paraguay fële bët saalumu continent américain Amérique du Sud foofu mooy cosaanam ananas waaw waaye bari na ci xeetu ci réew yu nekk ci bërëb boobu ci continent boobu fu mel ni Brésil fu mel ni fi ñu tuddee Argentine tamit waaw kon daal foofu la jógee fa njëkk a gisee ananas waaw bët saalum continent américain waaw ci dëkk yooyu nga xam ne dañoo am climat bu tàng waaye dëkk dëkk yi am ndox ndax ananas ñaari climat yooyu la bëgg rek fu tàng te am ndox waaw moom moom du meññ fu sedd fu tàng te am ndox rek. te dëkk yooyu noonu la seeni climat mel waaw moom ananaas mi ngi bokk ci genn ngiiru gàncax gi ñuy tuddee broméliacées broméliacées waaw ci ngir googu la bokk eh, ngir googu nag la ëpp gàncax gu yam lañu lañuy doon te yëpp ci gàncax ya yacaan yacaan ci ngir googu foofu lañ cosaanoo mooy eh, dëkk yooyu réew yooyu rek ma lim waaw te ca foofu lañ cosaano waaw kon nag loolu moom su doon ananas am na carte d'identité daal lañ naan loolu mooy carte d'identité garab gi mi ngi cosaanoo Amérique du Sud ñu ngi bokk ci ngir googu nga xam ne moom laa wax léegi te it bu tàng te am ndox rek la soxla waaw moo tax fépp fu tàng am ndox rek boo fa jéemee suuxat ananas rek mu mu mu meññ incha allah waaw même ñun sunu réew yi nga xam ne tàng na su dee dinañ am ndox mu doy rek. mën koo toppatoo ananas mën na fee meññ gis nga nag ananas lu bari ferñeent la eh, am na lu ñuy tuddee calcium bu doy ak fer ak iode ak magnésium ak phosphore ak manganèse ak potassium sodium ak zinc ak yeneen xeetu ferñeent yi nga xam ne limuma leen ndax romb nañ fi. weer ñeent yi nag benn bu ne am solo bu ci ne waaye li ëppati solo ci ananas du ñeent yi nga xam ne lim naa leen waaw waaye beneen ferñeent la weneen ferñeent la wu tudd broméline waaw wala broméline ndax dañ danañ ko woowee broméline danañ ko woowee broméline waaw ah, boroomi lim nag gis nga am nag garab yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey defeer ñeent wi lañ ci def garab yooyu day faj xeetu tawat yu dëgër bopp waaw defeer ñeent woowu nekk ci garab yooyu garab yooyu am nañ ko de ndax ndollental rek waaye bu dee ananas nag fer ñeent wi dafa fekk baax ci ananas waaw borome lin wala borome layin boobu moom dafa fekk baax ci ananas ananas da ko bërile bërile ba mu jéggi dayoo te ananas bu la gën a fere nag moo la ëppale borome lin waaw waaw waaw hmm, ferñeent bu am solo la nga xam ne meññeent bu ko am amee ci meññeent meññent bi day faj bu amee ci garab yi garab gi day baax waaye bi gën a naturel mooy bi nga xam ne dafa nekk ci fruit bi naturellement te ananas du ko am ba mu te xam nga li li ndax moom mu am solo ferñeent wii nekk ci ananas ñu koy tuddee broméline te ma wax leen léegi am na ñu koy tuddee broméline ferñeent woowu gis nga boo lekkee ananas wala nga naan jus ananas deret ji day day gaaw rek capté ko waaye day day a deret ji dafa yàkkamti woon loolu ñëw loolu ñëw ci biir ci biiram waaw gar deret bi da koy deret ji da koy jël ndax da koy jëfandikoo waaw boo ko defee day aar day aar ji day aar deret ji waaw xam nga dret composant la composant la ci li ñuy tuddee système immunitaire deretu nit dafa may donj yu ca nekk waaw te donj yi ca nekk yooyu dafa bokk ci défense immunitaire yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy aar doomu aadama ji doomu aadama bi ci xeet yenn xeetu yenn xeetu jàngoro yi gis nga nag boo jëfandikoo ananas deret ji moom du ko gëmee ndax ferñeent boobu deret ji da koo soxla waaw kon nag da koy da jël ci saasi waaw waaw woowu lu baax la ci yenn metit yu tar yi waaw moo tax ananas ananas li ci jiitu dafay dafay faj arthrose garab yu bari nag mën lañ leen digle ci arthrose ñu ne jële garab sàngam garab sàngam garab sàngam waaye gis nga kii amee arthrose bu defoon guddi gu ne mu naan jus ananas bu naturel bu ko mënoon defaral boppam moo gën waaw bu defaral boppam moo gën guddi mu ne mu naan guddi gu ne mu naan jus ananas bu bees tàq bu mu liggéeyal boppam bi nga xam ne moo ko mixel defaral ko boppam. soo ko soxla léegi arthrose bi wér moom da koy wéral boo mënul defar jus guddi gu nga lekk ananas waaw ananas dafay wéral arthrose ndax ferñeent woowu nga xam ne moo ci nekk te da ci am am ananas da ci am lu doy waaw ferñeent woowu dafay dugg ci articulation yi ci sofe sofe sofe yi fii yax yi di daje waaw day defaraat bërëb yooyu te arthrose fi yax yi daje rek la lay lay lay jàpp li ci ananas kon nga dégg ci ne ananas di ko jëfandikoo bu doon guddi gu ne nga naan ci benn kaas jus ananas boo defaral sa bopp waaw loolu mooy li ci gën a néew ndax mën nga cee defar jus di ko naan suba ngoon ba tey baax na wala nga lekk ananas nga saxoo sa arthrose mun na dem ba wér kon nag ñi amee arthrose digal nañ leen ko waaw broméline boobu nekk ci ananas moom moo tax ananas dafa baax ci ki nga xam ne yaramam dafay néewi yaram yooyu di sadd waaw booy jëfandikoo ananas dala koy faj koy fajal waaw dala koy fajal ananas it wala jus ananas ñeent boobu nekk ca moo tax ñu digal ko ci ki nga xam ne eh, am na jàngoro ju ko daloon bu sonnal ko boobu bañ mujjee ko defal li ñu tuddee opération defal ko chirurgie opération bañ la opéré ba noppi waaw dañ lay dañ lay digal ngay jël ngay jël ananas di ko lekk lu bari ndax daf lay dolliwaat kattan. waa nga teel a jug dox say soxla waaw boromelin boobu nekk ci ananas dafa am doole dafa am doole xeetu ñeent bu am solo la nga xam ne jàngoro yu gën a métti yi sax dañ ko ci digle waaw moo tax ananas ki amee tawati xol yi tawat tawat mu jàpp xolom rek ak nu mën a tudd insuffisance cardiaque ak cardiopathie nuñ ko mën a tuddee waaw nuñ ko mën a tuddee waaw jëfandikoo ananas saafara la ci waaw ak asthme asthmatique yi moom buñ ko xamoon dañuy fonk fruit bi waaw ndax broméline boobu nekk ca dafa jeexantal ci wàllu asthme waaw ak wàllu cancer yi waaw cancer yëpp lekkum ananas rek aar na la ci wala di faral di naan jiwu ananas cancer yëpp ndax it ndax ñeent yu may wax ni moo ci ne te da ci am lu bari waaw waaw <coughs> loolu mooy lu aju rek ci ferñeent boobu ñu tuddee broméline te nekk ci ananas waaw waaye ba léegi ci ananas eh, bokk na ci ay njëriñam la mën a jëriñ lu dee yaa ngi koy jëfandikoo su doon da ngay faral di seere mën na la cee dimbale ananas ku koy jëfandikoo daa am ay saan day rey ay saan ak saan wu lu mu dëgër dëgër bopp nag waaw ni mu baaxee ci seere noonu la baaxee ci biir buy daw moom ananas ananas dañ koo digal ki amee yaram yaram nga xaw a jéggi dayoo buggee wàññeeku rek saxoo ko waaw digle nañ ko ci wàllu soj waaw ak grippe soj ji grippe yooyu moom den jëfandikoo ananas rek waaw waaw nga ci daf la ci dimbale bu baax a baax waaw waaw su dee yaa ngi jëfandikoo ananas day tax sa deret ji di daw normal bu ko defee mën ngaa mucc ci taw du ñu tuddee AVC accident vasculaire cérébral euh, ñi ko amee ñëpp jàngoro jooju souvent foofu lay tàmbalee euh, deret ji moo dawatul normal ci yaram wi rek waaw ak ñi nga xam ne seen yaram dafay téye ndox waaw ñi nga xam ne seen yaram day sadd li cëpp yaram bi mooy téye ndox noonu lañ koy tuddee yaram wuy téye ndox waaw bu boobaa dañ moo tax nit ki dañ koy jox garab gu koy turloo ndox ndax sooy tur ndox lu bari rek yaa ngi éliminer toxines yi mbalitu yaram yi bu yàggee rek néewi néewi boobu di ci sa yaram day rees te loolu nag ananas da koo man waaw seen yaram di téye ndox di digal ananas waaw ñi amee yaram defe naa wax nañ ko léegi ak wàllu mettitu ndigg waaw ndigg luy metti waaw ngay jëfandikoo ananas su doon jus bi baax na bu dee lekkum ananas rek baax na waaye nga di ko jëfandikoo lu bari waaw wàllu siburu it digle nañ ko ci waaw siburu waaw siburu digle nañ ci ananas waaw waaye bu booba da ngay kay daggati xam nga ananas paaka lañ koy dagge ndax mën a génne ñam wi nag boo génnee ñam wi nga daggate ko baxal ko ci wàllu sibru da nga koy baxal ba mu nga teg nga teggi waaw di ko jël par kaas suba ngoon ci sibru rek la ñuy faral di defandoon nag waaye ci yeneen jàngoor yi moom del jëfandikoo ananas rek soo mënee defar jus bu naturel bu ñu raxul len len len len liñ mën a dolli ci jus bu ananas rek mooy limon ndax limon boo ko ci yokkee day yokk njëriñ waaye du ci wàññi dara waaw waaw loolu digle nañ ko waaw kon nag gis nga yii yëpp njëriñ la yi nga xam ne nañ ko fekk ci ananas eh, bu dee ñu ngi koy ñu ngi koy jëfandikoo su yàlla defee nag nga dem ba fu garab gi am gàncax gi ci boppam nga fexe am ci xob ya ki amee tawat woo ñu tuddee typhoïde fièvre typhoïde maa ngi koy waxtaanee defe naa jamono yi rek wax ne jàngoro la rek ji nga xam ne li ca ëpp nag nit da jële ci xaye di rek xaye di waaw raxasu ba set di lekk wala nga naan ndox mu setul waaw jàngoro ji la ñuy tuddee typhoïde waaw xobi ananas xobi garab gi xobi gàncax gi da koy faj waaw bu boobaa da ngay wut ci xob yi ngëp su ndaw nga boole kook limon limon bi da nga koy dagg daggati limon yi baxal ndokkook limon yi limon bi ba mu nga teggi ko di ko jël par digg kaas suba ak bëccëg ak ngon waaw kooku baax na ci xob yooyu it baax na ci asma comme ni ci meññeent yu baaxee bu dee yaa eh, defar nga comme ni ma ko waxee rek di ko jël par digg kaas waaw bu dee wàllu siburu xas mi soo demee ci garab yi xas mi baax na ci xasum xasum garabu ananas gàncax gi ci boppam xas mi rek boo ci xasee ki amee buñ ko baxal baxalee ba mu bax ñu jox ko ci mu naan ko par digg kaas ñaar ba ñettoon ci bés bi da kay faj xob yi buñ ko tucc tucc lay ko sàjji ko ba ndox ma ci nekk génn liquide bi mën naa faj lu mel ni ay lakk-lakk ay lakk-lakk ci lu gaaw waaw buñ ko ci def rek da koy wéral kon nag ananas mi ngi noonu mbokk yi gàncax gu am solo la moom tamit waaw ju jara fonk ndax yii yëpp rek ay njëriñam lañ asalaamaaleykum wa rahmatullah